waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ñoo mbokk yëpp di leen di leen ziar ñooñu yàlla subhaanahu wa taala mu defuñ tawfiq dafa leen ko kon ñoo ngi ñëw ci ñaareelu xaaju poñ bi jiitu mooy anam gi ñu defee màggal tuuba anam gi lu mooy ci àtteer islaam niñ ko waxee woon ci eh, njëlbeen gi mooy mbir ngir nga àtte ci faaw nga daal di koy figuré mooy nit mbir mënoo ko àtte lu dul da nga tasawur tasawur gu wér te bokk na ci liy dimbali tasawur gu wér nga dellu mbir ma ci cosaan wa Euh, suñu waxee anam wi lan mooy anam bi nga xam ne moom la ñuy wax mooy li dolloo li euh, dolleeku ci la sëñ bi digle woon ci wàllu màggal mooy léegi nag takku tub takku tukki wuti ab dëkk ban dëkk mooy tuubaa anam googu noonu loolu ca yokk noonu nga xam ne léegi dañuy dañuy wuti ab dëkk dem fa ngir def ko foofu anam googu loolu noonu lan moo ko lan moo ko waral. wala bokk lan mooy atteem ci lislaam ngir xam la mooy atteem lislaam faw ñu xam kon fa mu jóge fa mu jógee ci li ñëpp dëppoo mooy ne anam googu ka nga xam ne moo ko ci yokk ci màggal gi mooy sëriñ Fàllu mooy ñaareelu xalifu sëñ bi ci kañ ñu ngi koy date ci 1946 ne moom ci la njëkk a woote nit ñi ngi daal di ñëw pour daal di di màggale fa nga xam ne mooy Tuuba beneen laaj bi ñuy dimbali ngir ñu mën a figurer mbir mu baax bala ñu ci àtte lislaam mooy loolu fu ko lu tax lu waral loolu nga tontu loolu dañuy laaj laaj bi jiitu mooy ndax sëñ bi moo ko digal dañ naan la déedéet nekkut ne moom moo ko digal lii fi ne nekkul moo ko digal doo ko fekk ci xasaayidam fu muy wootee nit ñi ni màggal ñëw daal di woote fekk ko fa mooy Tuuba li koy gën a firndeel mooy amut kenn nit ku ñu gis ci ñu ngi wax ne ñooy mag ñi seen ci seen asanid yooyu ne sëñ bi digle woon na su fi jógee gaay di màggal si ñëw Tuuba li firndeel loolu sax te mënutoon a nekk fekkoon ne sax lu nit nettali dañuy xam ne nuunte wér ndaxte jamono sëñ bi dund sëñ bi xamul woon fu muy mujjee ndaxte ma nga nekkoon résidence surveillée te résidence surveillée foofu la foofu la faatoo te jamono jooju noonu Tuuba doon a gut lu mu doon risque yenn saa day imaginer mbir imaginer ko ci jamono ji nekk te jamono jooju Touba doon ko mu doon mooy euh, nekk nekkagut dëkk boo xam ne dañ fay am nañu fa nit di wute lu dul ne sëñ bi rek moo ko sant moo ko sanc amagut jumaa ja jumaa ja doon si sëñ Fallou la eggee euh, amagut ab ay bàmbe lu ñu fa lu ñu fa lu sëñ bi sa faatoo faatoowu fa li nga xam ne moo ñëw ci at si mooy ba mu gudd ga mu faat dañ ko jël yóbbu ko Touba mooy ci euh, loo xam ne indi na sax ay coow ci seen ci seen biir ci autorisation li nga xam ne mooy Touba bi ñu dem daal di koy denc fa nga xam ne moom mooy moom mooy euh, mooy Touba te loolu la mbir yi nag teg si yeeg mbir yi loolu la gën a firndeel ndaxte am na ñuy posé wu des questions ndax nañ ko denc Touba denc ko njaar et cetera defoon nañ ci ay leeral ne sooy seetlu xool ni gën a wér xool mbir yi gis na Touba lañ ko denc la ca des yëpp ay ay wax la yoo xam ne ay wax yi ñoo xam ne euh, duñ ko teg ci li xam ne mooy histoire ak wax yi ñoo xam ne ay rivalité yi diggante jóge ci benn geneen wet seen kuj seen wujj yo muy muy Tijaan mais li wér mooy ne Touba lañ ko denc loolu la mbir yi firndeel ne euh, mi nga foofu noonu lañ ko lañ ko denc mais li tax a jug fii mooy kon jamono jooju noonu moom amuloon moom muy dund di def màggalam ga ci ministre bi foofu noonu amagut woon benn raison buy tax muy wax nañ ko defee tuuba moo tax it ñëpp comme nekkoon nañ njaari nga wax doon sax nit ñi def parfois ñu defee ko fa kon kan moo ko indi ñu defee ko tuuba mooy euh, Serigne Fall li gën a firndeel ne nekk ko tamit moo ko digle mooy ne xalifaam mooy ba mu faatoo moom 1927 Euh, ba 1946 diggante am benn xalifa nekk muy Serigne ah, Serigne Moustapha kon nga gis ne ñaar fukki at ak 1922 ba mu njëkk a def màggal gi mooy ñaar fukki at ak 24 euh, ans euh, jàll na ñu doog a def màggal ga ca Touba su kon ne lu mu digle woon la kon xalifam ba dina ko ki ko njëkk a wuutu moo koy njëkk a moo koy njëkk a njëkk def ndax jamono jooju nag Touba mi ngi commencé. ñu ko commencé di jëmmal am autorisation pour defar ji euh, yóbbu fa sëñ bi suul nañ ko fa kon mi ngi commencé bi relation bu baax ak tubaab bi ba mun ko permettre su bëggee def màggal ñi ñu daal fay ñu daal fay ñëw kon lan moo waral li ko waral ngir li pour des raisons politiques pour des raisons politiques raison politique yooyu noonu lan lay def ci mag ñu màggal Tuuba foog nit ki daa xam contexte mooy ne sëriñ si nga xam ne ñoo fi nekkoon mooy seen sëriñ su mag ci bañ fi jógee kër sëriñ ci yëpp daa am yu xuloo ak i ngaayoo ci kan mooy donnu sëñ bi moo xam soo demee Tiijaan la moo xam soo demee ci Siween yi moo xam nga dem ci Taaleen yi moo xam nga ñëw ci Mbàkke Mbàkke yi mais ñoom lañ nekk tey waaye tubaab bi ak ña nga xam ne ñoo leen wuutu ñoom dañoo xam ne soxla woon nañ sëriñ sii rawatin nag ci li nga xam ne mooy bayub gerte gi gerte gi moo tax bokk na ci Ousseynou lay wax ne ñoom dafa am ñaari mbir yi doon hésité mooy suñ fi suñ fi ñu leen fi baax mooy aristocratie bi wala bokk ñi nga xam ne ñoom ñooy sëriñ si ñu gis ne sëriñ si moom faaw ñu baleen fi ñu wuutu leen fi ci ndax da leen di dimbali ci li nga xam ne mooy jamono ñi fa nekkee bokk ña ñuy collaborer aristocratie bi wala sëriñ si suñ fi jógee tamit ñan lañ fi baax mais gisoon nañ ne sëriñ si ñoom collaborer bi ñu war a collaborer ak sëriñ si dina leen permettre li nga xam ne mooy gerte yi ñu mën koo am ay main d'œuvre boo xam ne noonu de gratuite de sëriñ di am ay taalibe taalibe yooyu lu luñ sëriñ bi digal ñu def ko ñuy bay gerte gi tubaab yi di dundee euh, ak seen i ak seen i njaboot sëriñ si tamit ñoom amoon tubaab yeeg ñi wóotu tubaab yi daal leen arranger ngir nañ di leen appuyer di leen. Euh, Euh, di leen dëgëra du leen du leen sonal ba fi tubaab yi jógee ba fi seen ay tubaab yi ay tubaab yi ñuul ba fi nañu jàngal ñoom Senghor ak ñañuy wujjeel euh, yenn saa yi ju boo ko saa ñu wute euh, Lamine Gueye ñoom wala ñoom nga leen ju Blaise Diagne ñooñu tamit xam ne pour mën a exister faaw dañoo soxla sëriñ si ñu daal appuyé ci benn mbir mooy sëriñ si ba fi seeni mbaay jógee dañoo am ak ay xuloo ak i xëccoo ngir kan mooy jiite seen biir politique yi appuyé ci loolu ku nekk am foo am foo far ku nekk am foo far mu nekk ay alliance ci sëriñ si ak politique yi su ñëwee nag loolu mooy contexte général bi su ñëwee ci Touba. ba nga xamee ne sëriñ bi faatu na ñëpp xam na histoire am ci Daaru Salaam ak waa Daaru Xuddus ci kan mooy donn tubaab yi daal di jël lignée ndax jamono jooju ñoom kañ gënoon a jege mu te nga xam ne ku loon anticolonisation mooy sëñ Moustapha ñu ànd ak sëñ Moustapha lii histoire la waa eh, texte yëpp ënd nañ ko ci eh, lañ def ci colonisation dañuy tënk rek ngir ñëw ci contexte pour ñu xam màggal Tuubaa bi mu jógee màggal gi ngeen dem tubaab yi lan moo ko waral tubaab bi da cee taq rib ak Senghor ci contexte boobu noonu ba sëriñ Moustapha daal di nekk xalifa ba daal di fi euh, jóge am doomam bu ko bëgg a donn muy gaynde Fatma ndaxte tubaab yi ñoo tëraloon ne doom mooy donn mag c'est-à-dire mbir mi nekkoon dañ koy donnante par sarak ko jóge fii ndax su fekkoon ne jóge na fii dañ tubaab kon ne ko sëriñ Moustapha dañ amoon na ku mënoon donn ci wàllu waaye ñoom ñu daal di tëral ne doom mooy donn bàyyi ndax jamono sëriñ Moustapha moo leen moo leen te loolu dëppoo nag Sénégal ni ñuy doxale léegi sëñ Moustapha jógee fi moom ku koy donnu rakkam a koy donnu wala li nga xam ne moom mooy doomam ndax su fekkee da ngaa jël ne moom mooy xalifa bi ba te moom daa donnoon baayam kon moom doomam a koy donn waaye nag dañoo xam ne moom la mu donnu daa am ñu ko bokkaloon <laughs> mooy eh, ñi nga xam ne ñooy ay rakkam kon su fekkee dañoo jël mbir mi kooku moom mooy sëñ bi moom moom ay rakkam ñoo ko war doon ndax dañuy donn seen baay muhim waaye Gaynde Fatma moom gisul loolu mbir mi noonu te moom était anti colonialiste anti Senghor foofu Senghor dugg si na ba Serigne Fallou nekkee xalifa Gaynde Fatma fu wu jóg ak moom lii nag kenn tamit lii lu ñëpp dëppoo la ñëpp xam nañu werante gam ci waa kër Serigne Fallou daal ku dóos xuloo sax dem na ci bés ci porte plainte ba mu confisqué archive yi indi ko indi naa ko ci yeneen mu confisqué li nga xam ne moom mooy kayitu jumay euh, jumay Touba ak li am ci wàllu euh, euh, titre foncier boobu ñuy wax nañ ko séddale muhim fii nii ci context bii nga xam ne Gaynde Fatma moom mi ngi opposé ak euh, bàyyu tëxam bii ci lan ci wàllu xalifa ak wàllu jiite en tout cas li nga mooy autorité am waaye ci jamonoy sëñ Moustapha am na beneen lu màggal gu ñuy wooyee màggal Daaru Xuddus mooy faatu gi nga xam ne mooy bisu génnu àdduna sëñ bi ñu koy màggal mooy màggalu Daaru Xuddus gi màggal googu dafa am leneen lu muy dëgëral ci waa Daaru Xuddus ne waa Daaru Xuddus ñoom ñoo ci li ñuy wax histoire ñoom am nañ koy tronqué dafa am ndam gu muy jox waa Daaru Xuddus mooy ñoom ñoo jël sëñ bi jëlee ko Jurbel yóbbu ko Tuubaa te Tuubaa bi àndu ca màggal googu ba fi sëñ Moustapha nekkee moo nekkoon màggal gu ñuy wax màggal gu mag gi sax moom la nag far ñu tudd ko màggalu Daaru Xuddus màggal goo am événement bu ci am ki nga xam ne mooy parce que Gaynde Fatma moom ka nga xam ne moo ko doon jàppale jamono jooju moom mooy Lamine Gueye ba sëñ bi daal di sëñ ki nga xamee ne moom mooy euh, euh, ba sëriñ Fallou nekkee xalifa naggal dara Xuddus goog daal daal di continuer ñu am ay doxalin yu am yoo xam ne mun nañ ko tuddee humiliation ci xalif bi ak ki nga xam ne moom mooy Senghor ci boobu nag ñu décidé ñoom ci accordu Senghor ak gisuñ Senghor daal di am màggal goo xam ne day doon màggal goo xam day doon ci léegi ci emprise u Sëriñ Fallu lii may wax ni ku dem ci euh, benn euh, téere bu Jean Schmidt tudde un politologue chez les marabouts bu am solo la day jël ay travaux yu bari yoo xam ne def nañ ko ci euh, ci sëriñ si ak ak li nga xam ne mooy tubaab yi ak politique Sénégal ak sëriñ si ni ñu àndee ak travaux yi nga xam ne moo ñoo ko jiitu mu koy euh, analyser am na benn euh, livre mu ci analyser bu livre boo xam ne kono moo ko bind moo ci indi mbir yu bëree bëri ku dem ni ko fekk li may wax ni contextualisation mbir mi yëpp kon li waral mooy sëñ il fallait que sëñ Fallou am màggalug boppam moom màggal goo xam ne moo cay doon bu wuteeg màggalug daalu Xuddus gi te màggal googu yëpp sëñ bi lay dellu mais waa Daaru Xuddus sagam ñoom ñoo njëkk a nekk ci xilaafe ñoo màggal googu ñoo ko yoroon kenn fan bu ñuy dafa opposé wu rek sëñ ah, sëñ Fallou ànd la ànd ak Lamine Gueye wuteeg li nga xam ne moom mooy eh, moom mooy Senghor kon il fallait que sëñ Fallou def màggalug boppam moo tax mu daal di ñëw woote màggalug Touba ba tey ci di 18 safar googu noonu

ba tey bii màggal googu dañ koy dañ koy célébrer mais ni bii di siiwee du ko siiwee te ndax seen rivalité bi amoon diggante Lamine Gueye wala boog diggante après day dem ba ci Senghor ak Mamadou Dia ba tey sëriñ ci réew lañu mu gis ay nit ñu bari di saaga euh, politique yi di i seen i sëriñ di vénérer Mamadou Dia te xam nga Mamadou Dia kenn ko lu dul sëriñ soos ñuy ñuy vénérer ñoo sacrifié Mamadou Dia ci leer nañ ñoom ñoo ànd ak Senghor sacrifié ko pour seeni i intérêt bopp pas pour intérêt population bi te seen waa ji mais tamit suñ daree sacrifice ñi jàpp tamit ne ñoo ñoom ñoo ñooy ñooy représenté wala boog ñoom ñoo fi dundalaat la Mamadou Dia nekkoon ñoo koy sacrifié mooy sëriñ si moo tax sénégalais dañoo nekk ci guuta goo xam ne du daal loon ci génn guut ak bid ñu dugg ne pour ñu génn ci problème la ndax ña ñuy vénéré ñoo leen di sacrifié te bëgguñoo te bëgguñoo bañooñu mooy kon màggal gi lii ma ko waral mooy takk tukki dem Touba ngeen màggale fa ci lii la ci contexte bii nii la ci contexte bii nii la la la la amee maanaam yeneen raison waaye raison principale bi moom mooy moom mooy lii su fekkoon ne Sëñ Fallu màggalu Daaru Xuddus googu nag mu ñëwee yëpp teg nañ ci loxo moom moo ko ji mooy lépp te ba tey moom mooy xalifa sëñ mag bi kon xalif màggal màgg màggalu génn àdduna sëñ bi moom moo ko war a yor ci biraa bi la ci gaan koo xam ne xalifa nga mais teguñ ko ci loxoom nekkut euh, Gaynde Fatma moom dafa jëloon yoonu boppam ci gisut ne kii moo war a moo ko war a jiite kon foowel fale am beneen mbir beneen màggal goo xam dafay contrer màggal dafay contrer màggal googu euh, rivalité yooyu dafa continuer ba Cheikh Abdoul Ahad ba mu ñëwee tamit am na beneen moom it ku ko koo xam ne moo sax ba sëñ Fàllu euh, jógee ah sëñ Modou bu sa jeg moom it sëñ Abdou Lahad la opposé wul mooy ne gis ne do jarbaar yi dañuy wala bokk doom yi dañuy wuteeg baay yu tëxe loolu tam noonu la amee ca ca ca tariqa tijaan yi noonu la amee ca euh, ca taaleen yi mais lépp ba tey day doon ci benn positionnement politique xëccoo politique au détriment des des des talibés ku nekk di def di xeex say euh, say intérêt kon lii mooy cosaanu màggal ñu koy defee fele xam ne moom mooy moom mooy Touba rek ginnaaw contextualisation boobu léegi kon lan mooy àttee l'islam ci loolu lan mooy àttee kon anam gii nga xam ne moom lañuy ñuy màggalee la chaqque ne ci anam ga jiitu sagam anam googu won nañ ne bokkul ca ci mooy duggut ca lañu ca lañu ñàkk la chaqque ne lépp loo ca dolli rek fekk fa lële day fekk nday tabax day tabaxu ci loo xam ne moom tabaxut waaye li tax ñu jëlaat lii ngir leeru xukmam ngir wane kon namu muy cay lañ cay dolli dafa gën a tee daal di woyefal wala boog daa gën màbbal la nga xam ne moom mooy fondement ba nga xam ne ñoom moom lañ ci leen tabaxoon mbir mi kon dañuy delluwaat ci qaida ba mooy jàpp ko bu doonum règle mooy ne lislaam ëttub lislaam danga koo danga koo ñàkk daa mu nekk ca biir kon képp koo xam ne danga ñëw ne lii ca la bokk faw nga indib lay ndax ci lislaam xam nañ ñu daal di jaam yàlla sunu boroom di daal di takkub tukki di dem ci ay bërëb ndax loolu sax na ci sax na ci lislaam ngir doon loolu dañuy wax ne la chèque nit su fekkee da day takku tukki di dem ci bërëb mooy takku tukki jëm ci bërëb boobu bu def fa ngir jaamu yàlla sunu boroom daa am lu mu làmbool mooy ne mu fas ne du bërëb boobu da am ngëneel gu fa nekk fas gu mu fas ne bërëb da am ngëneel gu ca nekk waaye ci lislaam nit ki lépp loo xam ne daf koy jëf wala mu koy fas faw mu xool ndax fas-fas boobu wala jëf googu daa bokk ci ëtt bi nga xam ne ñàkk nañ ko mooy lan faw mu indi lay ndax lislaam nit ki am na droit xii daan ne bërëb bii nii bërëbu ngëneel la te du ca tekki lay naan ko déedéet képp ku ne bërëb bii nii dafa am ngëneel gu ca nekk faw nga indi lay ci alquran sunna bi wan ne bërëb bi daa moom ngëneel ndaxte yàlla daa bind bërëb yi bind li nga xam ne mooy jamono ji yëpp a yem ca yàlla sunu boroom lu dul la ca yàlla soppi daan bii de moom daa mu ngëneel bërëb bi yàlla da koo bëgg da koo fonk bërëb bi dee leen dem di jaamu yàlla sunu borom wala jamono ji moom dee leen ko dee leen ko wut di fa yàlla sunu borom kon képp koo xam ne yaa ngi am fas ci ab bërëb ne lii daa moom ngëneel faaw nga indi ay lañ. ndax Tuubaa kon dafa am gëneel gu fa nekk dana la déedéet lu tax déedéet ndax amuñu ci alquran ak sunna lu ñuy firndeel ne Tuubaa daa am gëneel te cosaan la kon mooy dëkk la comme yeneen dëkk yi mook Dakar ak Kawlax ak Pout ak am ngëneel ñu ën ñu dalil ci alquran ak sunna bi ñu wan ne dëkk bi daa am ngëneel kon nit ki fas ne dëkk ba daa amum ngëneel te tëgg ko ci dalil wàcc na la nga xam ne moom la lislaam daal di indi te su jàppee ne da ab ngëneel te mënta indi ne lislaam moo ko jox ngëneel kooku mu teg ko ci waxi nit wala mu teg ko ci gisu nit su ko yëgut ma ngay jàppee kooku yàlla am lahum shuraka sharau lahum min ad diin maa lam yasan bihi llah ndax su jàppee ne bërëb yi daa am ngëneel te mënul wax ne yàlla moo ko wax mënul wax ne daf ko wax yenent bi sallallahu alayhi wasallam mu jottaluñu ko su fekkee ne loolu mënu ko indi kon moom ma ngay jàpp ci lisaanu xaalam ne am na ñeneen ñu mën a yoonal ci lislaam mën a jëli bërëb wala kii jamono daal di fay defi ngëneel suñu waxee ne waaye dañ faa suul nit ñu baax soo baa ñu ne ko nekkut na fépp fu ñu suul nit ku baax rek daa am ngëneel wala boog suul nit ku baax ca bërëb taxut bërëb ba daal di am benn ngëneel su fekkoon ne loolu la kon am na àdduna bi fu baree baree baree tey ay dëkk la yoo xam ne war a wala dëkk yoo xam ne ay ngëneel dafa nekk ndaxte ñi gën ci xeet bi di sahabatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñoo xam ne ñu ngi leen a suul sa Maghreb moo ñu gën a jege que Makka te pourtant duñ fa dem jàpp nga la te am na ñoo xam ne foofu la ñu faatoo am na saxaaba yoo xam ne ñu nga faatoo ci ay dëkku ci dëkk yoo xam ne ay dëkku yéefar la te kenn daawut euh, euh, di takk tukki di fa di fa dem su fekkoon ne loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dinañu xamal yonent yi nga xam gën ci àdduna bi fu ñu leen suul ngir ñu xam dëkk yooyu ngëneel la fa ngëneel la fa nekk ndax yonent bi amut loo xam ne mbaax la ngëneel lu dut te joxoñ nañu ko ndax daa yàlla subhaanahu wa taala daf ko taggee ne ku xéeroon li ci ñun xarisun aleykum dafa doon koo xam ne dafa xiir lool mooy saxaaba yi nee nañ ñoow yonent bi sallallahu alayhi wasallam picc bu doon naw seen bopp dañ ci jàng xam-xam amut lu leen di jegele àjjana lu wax nañ ko amut lu leen di sori di safara lu di jàngal na leen ko kon su fekkoon ne suul nit fenn nit ku baax ñu suul ko fenn day def dëkk boobu suuf soos mu amagu ngëneel kon la yonent bi njëkk a def mooy wan ñu xabaare ñu fa ñu suul yonent yàlla yi ndax nit mënut a baax ba féete leen kaw loolu doy na ngir lay ànd ak ne lay ba ka koy wax ka nga xam ne mooy wax ne suul nit fenn da indi ngëneel kooku moom moo war a indi li nga xam ne moom mooy moom mooy dalil moo war a indi layam ne mbir mi daa bokk ci ci ëtt bi loolu mooy li mooy kon li nga xam ne moom la nit mënta werante mooy tuubaa amul ngëneel gu fa nekk mooy suufu Tuuba moom du suuf goo xam ne benn ngëneel yàlla daf ko ko daf ko koo jagleel su fekkoon ne noonu la yàlla subhaanahu wa taala daal ñu koy xabaare fekk ne loolu la ñu fekk ko ci sunna yenent bi sallallahu alayhi alayhi wa sallam te lépp luñ fa mën a tudd ci ne jàpp ne moo tax ñu jàpp ne suus am na ngëneel am na feneen fuñ ko mën a tudde te nit ñi jàppewuñu ko jullit ñi jàppewuñu ko dëkk bomb bu ngëneel naam te lislaam du boole wala boog du tàqale lu bokk te du boole lu lu bokkut kon su loolu amee mooy jëmmi kon Tuuba moom am ngëneel nekku fa kon ngay gis ne di fa dem di fa wuti jaamu yàlla loolu bokkut ci li nga xam ne lislaam ndax lislaam fa mu ñu wax nu wuti fa jaamu yàlla mooy suñu ja bàyyee bërëb ngir dem ci beneen bërëb ngir daa dafay defee jaamu yàlla mooy ne bërëb bii daa gën bërëb be waaye su fekkee ne bërëb beeg bërëb bi ñoo yem kese ba mënoon defee jaamu yàlla ci bërëb bii te coono moo fekk ma bokk fa wuti coona daal dem ci benn bërëb bu benn ngëneel bu fa nekk ngir def fa jaamu yàlla booba da ngay yaa ngi dugg ceeb ndof te loolu nag kenn mënu koo accuser l'islam l'islam mënuñoo digal loolu l'islam mënuñoo digal lu mel noonu kon kay def loolu moom suñ ko yëg mu yëg ko mu ñàkk koo yëg mooy jàpp ni ngëneel foofu kon moo tax ñu laaj ko lan mooy si dalil ngëneel ko nga jàpp imma kon toogal sa kër nga leen ko fay nga koy def fekkoon ne mbir mi sax sax na ci islam waaye sax dañoo am leneen lu firndeel loolu ne sax nag far nag lam ca yokk moom lislaam daa ñëw daal koy tere mooy daganut nit ki daal di di takk tukki di wuti bërëb ngir daal fay defi jaamu yàlla ngir jëmmi bërëb yooyu lu dut ci ñetti ñetti bërëb képp ku def ku takk tukki dem feneen mooy pèlerinage wuti nag li nga xam ne moom lislaam daal di digle أبو هريرة نتلى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن دفنيلات شد الرحال إلا في ثلاثة مساجد موين نيت كي دغونو تومي تاكو توكي موي تاكو توكي غوغو جوبلو تشا أب برب غير دادي في غنال غومو أم غير دادي في دفي جام يالا موي بليريناج دغونو لودو تي نياتي نياتي برب يي موي بيت المقدس آه، مسجد الحرام اك مسجد يونت بي صلى الله عليه وسلم بنين بره بو مونتي دون كيب كو فا تك توكي تي لي غوير تي حديث بي تي ديغنم تي بروم خام خامي موي لا غاي ديف ووتي ناك لا يونت بي صلى الله عليه وسلم دادي ديك لين كون سو فيكون سا تيوسا نو مبيرما دكو نون لا موي جانام غن كو دون ديفه تي نجيل بنغا su fekkoon ne cosaan la dagat na yokk ca léegi nag wuti bërëb nga defee ko fa loolu dafay doon loo xam ne dafa wuteeg li nga xam ne moom mooy lislaam ndax yenent bi sallallahu alayhi moom moo ko ko tere kon li mooy àtti anam gi soo yokkee ci loolu nag ne dañ cay dolli anam googu daal yóbbee ci yeneen mbir yoo xam ne lu jullit ñi dëpp ca tereem la kon su fekkoon ne sax anam gi takk tukki ga d'accord nañ ne sa dagan na léegi tante dafa lislaam daf koo tere waaye ñu gis ne loolu dagan noonu ndaxte suñu màggal jàpp naa ne kenn du wax ne dafa war mooy la nga xam ne ñoom ñu am xel ca ñoom doon seen i borom xam du ñu werante ne nekkut lu war dañ naan lu dagan la du ñu werante ne te nekkut warit dem Tuuba mooy ginnaaw ba ñu werantee ne werante wuñu ne màggal moom nekkut lu war duñ ca wérante ne màggal nekkut lu war Tuuba loolu tam wérante wuñ ci ñoom kon aqallu shay li ñuy wax mooy ne lu ñu sopp la te lu ñu sopp nag la chaque ne ku koy wax ci diine nga indi lay te li gis na lay yi daa wuteeg ne nekkoon nañ sopp bal ñu tere waaye dañuy iftiraat su fekkoon ne mbir ma cosaan la dagan na ñu ne cosaan la dagan na eh, demit Tuubaa ga dagan na waaye nekkul lu war waaye ñu gis ne mbir moomu day yóbbee ci mbir yoo xam ne dafa xaram qataan su boobaa loolu fekkee dañ koy natt ci nattu lislaam dafay war lu ñu ba mbir ma ndaxte dem tuubaa googu daa am leen lu ca dolleeku lu ca dolleeku mooy lan mooy daal di jublu dem ci ay barab fu ñuy suuli nit def ko iid te yenent bi sallallahu alayhi bokk na ci li ko gënoon a yitteel moo tax ba muy faatu mom la doon taxaw di wax moy ñu bañe a jël moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam daf ko ayit mo nan bu len jël sama sama sama bàmmeel bi ni def ko bayit ayit mooy ayit lan moy def ko bërëb bo xamne dañ fay jaabante def ko yoonu yoonu yoonu tol def ko ayit moy lan def ko bërëb bo xamne dañ ciy jublu fay defi jaamu yàlla sunu borom motax mu ne la tattaxidu qabri masjid mu ne bu leen jël sama bàmmeel wii def ko ob càkk waaye te tegu ca mu ferndeel loolu nu mu métti mu ne yàlla rëbb na al yahuud an ñu ne ko lu tax mu ne ndax ñoom dañ doon jël seeni bàmmeelu da nga xam ne ñooy seen nit yu baax ak seeni yeneen di ko defi jàkka def ko jàkka mooy dem fa di fa jaamu yàlla sunu boroom loolu su fekkee ne nit ki dafa dem di fa jaamu yàlla sunu borom mooy ca bàmmeel ba boobu mooy ziyaara bi nga xam ne ziyaar la boo xam ne daa tegu ci bidaa su ko fekkee ne def ko jàkka ja mooy day dem di jaamu nag bàmmeel ba kooku moom génn na ci lislaam te ñaari mbir yi amul kuy werante ne dafa am tuubaate lu yóbbee nit ñi loolu mooy màggal bokk na ci bis boobu màggal googu noonu nit ñi ngi ku dem tuubaa ba ñëw te ziyaare ji wu bàmmeel wala boo xabru sëriñ sa su fekkee ne eh, da ngay sëriñ mag ma da ngay dem ko après eh, Lamp Fall tamit lañ koy ziyaare ak ku nekk tamit ziyaare yow kër ga nga bokk soo amee jot ziyaare ñeneen ña ziyaare yooyu noonu nit daa jóge këram ngir loolu tax ku jóg dugg na ci terek yonent bi sallallahu alayhi wasallam li nga xam ne moom mooy takk tukki jëm ci bërëb yooyu su eggee foofu noonu ñaan fa jàpp ni fii nii bërëb la boo xam ne bu ñuy ñaan yàlla sunu boroom dugg na ci li yonent bi sallallahu alayhi tere woon mooy jël bam yi di ko defee nit di ko defi jàkka su demee jaamu leen wala bokk jaamu leen nga mooy mu ñaan leen seeni soxla te lii kenn du werante day am Tuuba mu dem fa ñaan leen ay aajoom comme ni ko ñenn ñu defee donte ñëpp duñ ko def foofu dafa gën a dee rëy mu doon bokkaale mbaxaw kon nga xam ne kon loolu yëpp doonatut sant yàlla fekkoon ne kon cosaan la mooy sant yàlla mbir mi ni muy amee lépp doonatul sant yàlla ndax daa doon ay jëf yu safaanoog la yàlla sant la nga gis ne sant yàlla gi sori nañ ko mbir mi daa dem ba wëlbatiku léegi su fekkee ni ko ko sos moom lañ ne kon yéeneem ca njëlbeen ga mooy sante yàlla sunu borom kon mbir ma mujj naa wëlbatiku. naam mun naa wëlbatiku doon safaanu sant yàlla mooy wedd yàlla sunu borom kon su fekkoon ne aslu ba sax dagan na aslu ba ca topp la nga xam ne sëñ bi su falu sos na ko mooy dem Tuubaa ga na waaye la ca toftalu nag la mu yóbbee nit ña su fekkee dañuy nattee mbir lislaam kon day waral ñu daal di ba mbir ma daal di koy tere ah ñun de dañoo amoon yéene bu rafet sant yàlla suñu borom da amoon yéene borom daje dinañ ci benn loo mu nekkoon suñu yéene gis nañ ne mbir ma fa muy yóbbu mooy lu wuteeg la yàlla subhanahu wa taala bëgg kon mbir bi dañ koy dañ koy annulé kenn dootul màggal Tuuba ku na nga toog sa na sa kër xam naa damay reewee la chaque fii waaye lii la mbir yoo doon def fekkee ne yàlla subhanahu moo tax ñu ñu jóg kon bii mooy poème jur kon lii mooy àtte lii mooy àtte ci màggalu tuubaa ci lislaam ci anam yi nga xam ne dañ ko defee may nañ lu bari ci yeneen ci lay dollee ko ci anam yooyu eh, waaye dinañ ci ñëw te dinañ ci jël benn yenn saay benn par benn par rapport ak yenn yi fi am ay jaxasoo gi fi am ci góor gi jigéen nga xam ne ci lu mën a ñàkk la ci loo xam ne aslu ba mooy nekkoon lu eh, eh, lu war bi idnillaahi subhaanahu ak yeneen mbir may yàquteeg ya fay am dinañ ñëw bi Allah subhanahu wa taala kon lii moo doonoon première point bi incha allah kon di donc correspondre ak deuxième partie bi mu def troisième partie bi nga xam ne kon mooy deuxième point bi mooy ci xam ndax sin bi xaqiqatan julli na ci ci géej gi wala julliwul ci ci géej gi salaamaaleykum wa rahmatullah